ñu koy jaay wala ñu koy jënd di ko woo ci sutura Esou Mbaye Abbé wala booro booro produit bi ñu gën a xam ci turu Tababa mi ngi def ay loraange ci région Ziguinchor rawatina bi département Bignona ngir gën leen xamal bii le produit ak li tax soxna yu bëri ba yenn ci xale yi jigéen yi di ko jëfandikoo looloo waraloon tey Kéwoulo investigation ñëw fii ci Bignona ngir indi leen ci ay gastu Fatou Cissé doon bàjjenu gox te nekk tamit jigéen bu njëkk a dénoncé loraange yi Tababa di nekk di def fii ci Bignona mi ngi ciy indil ay leer leeral. xam nga tabaaba ñoom dañu ne garabu jigéen ñi mais garabu jigéen ñooñ li muy détruire ci jigéen a li muy indi ci jigéen ñun mënuñoo xam les conséquences parce que produit la boo xamante ni jigéen ñi dañ ko utiliser si seen sexe muy détruire yow xam nga yaa ma gën a xam ne le sexe de la femme. c'est sacré gynécologue yi dañ koy wax même raxas bi ko jigéen ñi di raxas di dugal seen loxo di def yu kenn xamul dañ leen tere tout produit dañ leen ko tere lu dul savon ordinaire te am na ñoo koy raxase am na wala am mais léegi suñu demee bay jël ay produits yuy détruire suñu flore vaginale di ko ca def lu mu ñuy indil kay martu tax ñu koy wax ñun war nañ ko xam te boo duggee kër santé ñoom gis nañu conséquences les sages-femmes les gynécologues gis nañu les conséquences parce que produit boo xamante ne composition am sax dafa doy waar. feuille taba yi saba-saba xam nga saba-saba moom la ñu doon toog am na yamba feuille yamba am na fa. nee nañu sax cocaïne am na fa doxati nga ci biir dëkk bi Sénégal woon ngel këpp ba nga taseeg batterie yi yàqu xam nga da nga daa taseeg batterie yooyu lampe torche yi nga gis ñu koy sànni loolu la ñuy ni li nekk ci ñuul ñu ne dinañ ko fa def te xam nga loolu poson la xeme bi nga xam ne boo koy natt pour say karo sax wala sa cuub da ngay sol ay gant ñu ne dinañ ca génne def ca est-ce que loolu war na dem ci sexe waru ci dem moo tax jigéen bi premier jour bi ko jigéen di jëkk ko consommé day wàccu wàccu wàccu wàccu ba sunu moytuwul hôpital lay mujjee te ni muy wàccoo la biir bi di dawee ñuy di def di def ba léegi nag ñu nekk ay chronique xam nga toxkatu yàmbaa am na heure boo xam ne mu ngi tox heure boo xam ne il faut mu uti ko kii jël cocaïne am na heure boo xam ne il faut mu uti ko ñu jigéen ñooñu di ko utilise ñoo yem parce que dañuy drogué lañu dañuy màndi te buñ ko defee da leen di piqué di leen def loo xamante ne si seen biir sexe day gis ñu sànni tànk fii sànni tànk fële taal ventilo yii léegi ko gis amna na ventilo bu ndaw taal ubbi seen tànk mu di upp ci parce que bobu temps affaire ba ngi def effet nangootuñu sëy ak di jëkkër parce que nenañu sen plaisir ci produit bobu lañ ko amé man sama dem Bignona c'est pas gratuit hein Bignona ñoo ma woo pour ma ñëw sensibiliser sauver seen jabar ñi xasa am feebar bi ak ñi nga xamante ne amaguñ ko ñi ko doon utiliser ak ñi nga xamante ne mën nañ ko bàyyi kon loolu moo fa nekk madame Bignona su ngeen seetee sax photo yi da ngay gis imam ni toogoon noonu góor yooyu yi la a ah, chef de village ak chef de quartier kon nga xam ne ni ñi d'accord nañ ci sama ñëw mais bi ma waxee aussi am na ay témoignages yu fa juge am na jigéen ñu ne dañ ko doon def mais xamuñu les conséquences am na jigéen ñu ne dañ ko doon def mais à partir de jour boobu ñu ngi ñaan ndimbal pour ñu mën ko bàyyi parce que drogué kii nga xam ne drogué la pour mu génn ci dara il faut ñu jàppale ko te soo demee laaj sage femme yi wala cuisinier ñaata femme ñoo accouché seeni doom dee parce que dañuy nekk en état di ko utiliser produit bi nga xam ne nit mun ko supporter xale bi respirer ci biir yaayam mën na ko supporter xale yi dañu ne accouché xale yi dee da ngay gis jigéen boo xamante ne day dem consultation biir sexam yëpp dafay ñuul ndax produit boobu xam mooy ci nekk mais loolu bu yàggee nga infecté te boo infecté nu muy def damay laaj dama xam finalement cancer du col dafa bëri léegi femmes yi ko am te produit bi kon yooyu yëpp nag pour dajee ah du baax de te yoo xam nga ne cancer Sénégal tolloo gul ci état boo étape boo xamante ne mën na ko faj dañuy calmer rek moo tax ma ne jigéen ñi nga xamante ne def nañ ko ba cancer fekk leen ci nañu gas seen bàmmeel te pare ñi nga xamante ne ñu si yoon bi bu yeboo ba baax suivre ay traitement du noonu pour te dire ko xool laa ci am ak sentir odeur mais musuma ko utiliser dégg naa daal parce que aussi looy wax na la leer ñu nem di jógee côté Guinée Bissau mais je ne am na aussi ku ma ne am na benn jigéen góor bu amoon xam-xam produit bi si moom la jëkk a génne mais produit am ak produit bi jigéen ñi utiliser du benn parce que moom daf ko daat faje te bi mu koy joxe du woon pour la sexe mën na am ci yaram nga ko daat def nga yëg lu lay fej mais defu ko woon pour le sexe te produit yi ñu siy bes def léegi yëpp moom daaw ko ci def munu ma nag ba jigéen ñi duggee ci produit bi indi ci seen yëpp mélange indi ci seen njambaat ci la ci kooku génn ba mu set parce que yëpp ci sama recherche laa koy amee xam nga mais fu mu jugee exactement su ma la ko waxee rek fan naa mais xam naa ne mi ngi ci biir dëgg te ñi koy jaay dañuy nëbbatu comme ñuy jaay yàmbaa de tooguloo fii rek ko jaay dañuy nëbbatu nday ami doon taskatu xibaar di wax moom tamit ci garabu jigéen yi ñuy utiliser di ko def seeni kanam ngir dab seeni bànneexu bakkan euh, def naa reportage benn dëkk conki siin reportage boo xam ne dañoo gunge woon benn structure bu demoon doon def euh, dépistage du cancer du col de l'utérus mu am une dame qui en profité mu ñëw bi mu ñëwee Euh, parce que moom da koy utiliser ndekete depuis presque un an un an ou un an et quelque mu koy utiliser léegi nee na mu toog ba benn instant mu yëg ni moom bu toogee sëram day tooy fu mu toog sëram day tooy et puis day am une mauvaise odeur xamul exactement lan la léegi bi mu déggee ni dafa am dépistage du col de tenk euh, tonsillisé foofu mu profité ci loolu mu ne mu ñëw pour waxaa xoolaale moom lan moo ko dal bi mu ñëwee jour boobu sage-femme bu moom bu ñu eggee ci moom bu station bi dugalee loo xam ci kol bi ci kanamam bi mu ko génnee juste mu gis affaire bu taq ci loxo bi mooy ga ci gaaw sage-femme bi kooku ne ko yow lii lan la ni mu ne ko mooy kii yooyu jigéen di utiliser produit yu jigéen di utiliser boobu laa moom moom laa mu ne ko may def foofu moom laa def ni moom moo moom nga génnee ni kooku ne ko yow est-ce que xam nga sa kanam bi commencé na yàqu fu mu toll nii mu ne ko yàqu mu ne ko waa ku ne ko yow fu mu toll nii sax fa nga dem ba Ziguinchor parce que affaire bi sa kanam bi mu commencé woon na di grignoté wu mel ni luy luy yëyu daal mu ne ko yow bi ngay def nii lan moo ci nekk mu ci boppam sax xamul lan moo ci nekk mu ne ko nag mu photo ko wan ko ne ko gis nga sa kanam bi fu mu toll nii état bii la nekk moo tax ngay génnee ndox nii mu di genre xasan ak yooyu après daam bi ne ma mën soxna si mën gaa jël kii reportage mu expliqué la. man ko d' accord bi ñu paree ma woo ko man ko soxna si noo def ma ça va bien une dame sax jongo ma nii euh, ma ne ko yow produit bi ñuy wax ni taba da nga koy utiliser bon taba taba ba joolay naan ko sumbaay loolu ñu ko leen koy wooye mu ne ma man kay dem koy utiliser boo ko utiliser da ngay xat day neex ak sa jëkkër boo ko ñem sa jëkkër bu ko ñemee dootu ko dootu la bàyyi nee na mu dem jox ko ko mu jënd première fois mu ngi ko utilisé nee na dafa miir te nee na ko day raxas sakkanam ba mu set lépp lu fay sax di koy génnee day génne da ngay set nee na bu mu ko utilisé bizarrement dafa wocc biir bi di daw muy wocc biir bi di daw muy wocc biir bi di daw journée ba ba mu mel ni nekkul sax ci àdduna mel ni ku ñu mën a te daal diggante dund nag dee après bu mu jógee mu sangu bi mu sangoo mu feex mu woo ki ko jaay mu ne ko man de lii bi ma ko defee effet bii la ma def mu ne ko jig na la kon mu ne comme daf na effet bii rek bu la jigee nii la lay def ah donc moom tem nee na jig na ko nee na mu bu mu seqal jëkkëram mu gis ni effectivement elle était resserrée affaire jëkkër ji mu jëkkër ci boppam chaque jour bu jeexee muy jël film dem dem di ko jënd di ñëw. jëkkër mu jigi mooy dem bu jégee ni ñëw na rek parce que ki koy jaay day ñëw da koy indi bu jëkkër jégee ni ñëw na rek day dem jëndi moom may jël vélo nii nag ko expliqué mooy sama jëkkër mooy jël vélo bi dem jëndi ko indi ko parce que keroog bu mu ko defee gis na ni xat na et tout nee na ci la ci bu mu commencé bu mu ko defee noonu nag mu continuer moytu koo bàyyi. parce que nee nañ ko boo defee loolu jig na la rek moom tamit nag nee na comme jig na ko chaque fois mu def ko te mu gis muy sax ak jëkkëram effectivement day day xat sage-femme bi ne ko. sage-femme bi ci la ne mu nekkoo yow est-ce que xam nga ni xat boobu jigéen yaramam suuf kese la. yow xat-xat bi ngay wax noonu ndox bi nekk sa yaram moom nga nekk di génn loo xam ne lay permettre que nga mën a seq ak sa jëkkër lu normal du la gaañ doo gaañ loolu nga nekk di ñàkk sa bopp noonu ban ndox moo war a sa yaram bi nga xam ni boo ko boo defee produit bi mooy war a génne ndox moom mu nekk yow li lay aidé sa àdduna sax moom nga nekk di génn ndox moom nag bu demee ba mu jeex sa yaram bi lay yaram bi lay yéey fu mu toll nii dafa yéey sa kii vagin bi ba actuellement boo deful ndànk yow nee na ko sax mu ne ko ne sax yow dañ lay référé nga dem Ziguinchor parce que mën na am ngay développé cancer du col de l'utérus doy waar moom ci après mu ne ma man di soxna si bi ko sage-femme bi expliqué les inconvénients yi mu gis si moom et tout mooy yi mu ko causé noonu mu ne ma man de soxna si su ma sañoon de nga vidéo ma sax même sama visage boo ko jëlul sax nga vidéo sama awra bi dama woon ko sama morom jigéen ñi au moins ma participe sensibilisation parce que liñ ma woon nii sama kanam man man dama désespéré

parce que cérémonie yu mag yi comme gàmmu yi nii xam nga yi nekk Europe Amérique ñëppay ñëw ci cérémonie yooyu si lañ yore seen siwo beurre yi siwo gis xam siwo cinq litres yi léegi foo gis jigéen meer yi gàddu ko rek xamal ni jaaykatu tabaaba la ah très grave boo gisee jigéen ñi góor ñi wax ma ma ànd ak la plateforme des femmes pour la paix en parce que ñun dañuy ut jàmm ñun suñu pexe mooy ut jàmm jubaat la askan toppatoo xale yi toppatoo mag ñi mais ba ñu demee ba ñun suñu moroomi jigéen di dee ci dara waruñu ci jóg ku ko si amul ba guddi jot nga xam ne man mi fàtte naa ko jënd te guddi na mooy koŋ-koŋ ndax amuloo nga lebal ma ba suba dégg nga ma koy wax ba xale yi di ko di ko def léegi seen musique kër boo dugg di ñu ne fii de xaw ma yeneen kii de mais man de ñi ma jot a enquête kër boo dugg au minimum am na kenn ku ko ci utiliser au minimum am na kenn ku ko ci utiliser li ñu mën mooy def sensibilisation comme bi ñu fi defoon euh, grand place du yàggul xamal leen produit bi liñ koy defaree

pile mooy pile am na batterie bu batterie bu demee ba mu usé wu ñun sax bu ñu nekkee xel da nga ko daan gis boo ko ubbee lu ñuul fa nekk dañ ko ci bool effectivement produit fa ñuul te am na encore pone tabac mooy tabac bi ci boppam parce que xetu tabac la yor boo ko xeeñee ne xetu tabac la yor yooyu yëpp bokk na ci am na ñu wax ni cocaïne nag yooyu mais en tout cas man xam naa ne trois produits moom de source sûre moom yooyu xam naa ne bokk na parce que am na ku ma wax ni ko wax wax koo xam ne moom da koy utiliser mais ki koy jaay boobu loolu yàgg na ko këram la nekkoon nee na kooku moo ko wax ni loolu yëpp produit am na fa avant ñuy def sensibilisation yi donc muy lu doy waar et puis beneen impact bu muy def ci euh, ci vie de couple parce que da ngay gis ko la wax ni ñi ne boo koy utiliser doo nam góor doo bëgg a góor surtout bu sa sa jëkkër bu fi nekkul doo am envie nekk ak góor ak yooyu donc am na lu muy rey ci yow loo xam ne sax yow xamoo ko ñiy sëy ñu ngi koy utiliser même effet lay def ci ñooñu parce que duñu duñu du sa jëkkër bu ñëwee man gis naa ko confié ci man benn waay bi confié ci man ne ma doo wax diw doo wax diw mu ne ma say muy sey ak moom sama kanam bi su may su may sey ak moom dafay mel ni dafa am ay genre kii yooyu affaire yu sew bi nekk ci biir ku góor ki moom wax ne mu ne su sey ak jabaram day am affaire yu sew yi nekk ci du nekk alisa dafay laaj dafa am lu muy daj foofu loo xam ne mooy genre résidus yi nga xam naa mu ne ma tey daf may gaañ parce que yooyu daf fi ngay kii daf lay mu ne doo wax ak moom wala ngay ñëw ne ko damaa bëgg a ak yow mu bay ça tue l'envie ku jigéen ki par rapport à jëkkëram donc yooyu yëpp bokk na ci li tax sax euh, waa Ziguinchor ñëw fii pour ñu gën a parce que nee yor jot nañu ay alerte ñoom tam ci waa Bignona ni seen jëkkër yi seen jabar yi mënatuñu jot seen jabar parce que seen jabar yooyu la ñuy dundee donc boo ko defee doo am parce que da ngay miin da ngay mii ko drogué yow ki koy utiliser su nga nekkee ci mbooloo xew bi li mu rëy rëy rëy rëy nu ñu bëri bëri bëri am na heure boo xam ne am na heure boo xam ne da ngay jékki-jékki mu réer parce que il faut que mu dem defi ko il faut mu dem defi ko bu ko defee mu dem am feneen fu mu tëdd fu muy laq ci tëdd foofu ba effet bi muy joué ci moom mu def ko bu mu jékki-jékki comme comme drogué ah waaw bu ma amul sama morom dina ma jox moo tax man la boo compté dix dix femmes sept yëpp dañuy consommer tabaaba te mën na am buñ ci waxul defuñu ci ay pexe trois yi desoon dinañ fekk si sept yi kon du doon cent pour cent waaw ñu ngi ciy xeex mooy li ma def rek xam nga góor ñu bari xamuñu ko woon góor ñu bari xamuñu ko woon wala nga xam ne jigéen ñi nax nañ leen parce que euh, am na témoignage korok góor bu ne moom bi ko jabaram defee moom bi mu ñëwee xam nga dañuy bañ am rapport ak seen jëkkër mais xam nga amul na góor nga xam bu ñu soxlaa amul droit mais moom bu mu consommé rapport am ah moom ku góor ki ci boppam moo xam moo xam kon ni muy rayee jigéen noonu la mën a rayee góor am na walam mën nga ci génnee ko yawit yawit yawit ku góor ki mën nga am ay sakel yu la top xam nga dañu doon nax naan saf-safal la du benn saf-safal safalul dara neexalul sëy ñoom ñoo ko def pour seen plaisir man nag je comprends très bien parce que xam nga jigéen ñi nga xam ne dañ leen mutilé mutilation génitale xam nga seen sensation dañ ko dagg la majeure partie du ñëpp ne mais la majeure partie mais kooku buy am rapport mënul am plaisir dégg nga mais bu defee produit bi day am plaisir moo tax léegi ñoom it ñu jël produit bi mu remplacer seen jëkkër yi. Amica don relais communautaire fii ci na lii la ñu daal di wax ci garabu abebe naw bi tabaaba comme genre poudre la dafa ñuul ñu koy defaree xeme ak leneen daal lu ci bëri ñu ngi koy defaree ci tabaaba bi ay produits bëri ñuy jël ñu boole ko defar ko ci ñu koy jaay femme yi tabaaba ko utiliser ba noppi nu muy mel ci biir. mooy végétal fu muy jurukaay bi mooy yàqu mooy tabax kii togg day mel ni ku jël ndobu tàng nga sotti ko ci kaw nit day ñor si biir day ñor man gis naa ko ku ko laal dafa wàccu biir bi di daw muy wàccu di miir ci kaw lal bi la nekk ba mu sedd mu doog a nekk normal te ko boo ko utiliser wule doo mën a toog normal il faut nga dem utiliser ko dañ koy def ba pare ñeneen dañ ciy nëbatu ñeneen dañuy fësu parce que dañuy nekk ni ci biir mboolo ñu ne maa ngi dem ci biir dem ci biir loolu lañ dem defi dinañ ko jaay ci biir marché yi dinañ ko jaay tamit ci kër yi nit ñi ñoo warutu nëbatu comme ni nga xam sa morom def na ko da nga ko war a dénoncé soit tamit ñu dénoncé ñu koy jaay mu ñu xam nan lañuy ñuy gën a résoudre solution bu weesoo jigéen ji ko doon dégg waaye musuñu ko utiliser am na ñeneen ñu ko jotoo jëfandikoo te ñàkk xam wala bëgg faju yóbbee leen ko ñu ànd a teewlu seeni kàddu mus naa gis ku ko utiliser te mus naa fekkee bu mu ko utiliser ba pare parce que dam ko demoon seeti ma egg fekk foofu mu ne dafa feebar après ma laaj ko lan moo lay mu ne man kii bi laa laal esumbaay bi <laughs> esumbaay laa laal ma ne ko lu esumbaay mu ne affaire bi ñuy def si kanam ma ne ko lu ñuy def si kanam waaw ma ne ko léegi ban réaction la def si sa yaram mu ne di ma ko jëlee après daf ma def woccu biir bi di daw néeg bi mel ni daal luy tourner mu ne néeg daam daa mel luy tourné mu ne à la sax dafa mujjee fat pot ma ne ko léegi yow lii nu la def nii mu ne waaye ku ñu ko ko jox dañu ne réaction bii lay def mais après su miinee sa yaram day bàyyi ma ne ko arrêté lii man ci saa si ma ne ko gis ngeen produit yi ngeen di laal nii ma ne ko awra dafa sensible tellement que am na yenn produit yoo xam ne boo ko si dugalee daf lay indil problème ma ne ko da lay indil cancer col de l'utérus bi ngay dégg nii ay affaires yi ñuy jël di ko dugal suñu awra yi moo koy indi ma ne ko arrêté lii mu ne déedéet dañ ma ne day faj yaram bu métti day wàccee coono oom yi métti affaire yooyu ma ne ko bul sa yaram di métti doo dem hôpital ngay dem di utiliser loo xamante ni nit ki fait fait fait maison la loo xam ne yow xamoo composant yi ma ne ko l'essentiel xam nga ni xeme mu ngi ci bokk xeme moom xam naa ne mu ne da ciy bokk xeme bi daal ak lu ci nekk daal boo mu mel noonu man daal mun ma comprendre ma ne ko yow imagine toi xeme nga jël ko di ko dugal si ka si si kanam ma ne ko xeme nga xam ne dafa tàng jër nga jël ko di ko dugal sa awra ma ne ko arrêté li waaye il paraît daal dañu ne lii boo xasee ba tàmm ko dafa mel ni comme cigarette wala ataaya wala drogue soo ko deful doo nekk il faut nga def ko fii majeure parti famille yëpp dañ koy utiliser te ñu koy jaay na nëbatu di ko jaay marché yi dañ koy jaay xew yi sax dañ ko fay jaay wala ay tuur yi nii sax dañ koy jaayante seen biir ñoom ñi koy utiliser seen biir ñoom xamante ni seen biir di ko jaay waaw bi daal baaxul produit chimique la daal laa ko mën a tuddee. pour la première fois dama biir. dama munu ma def dara ma waccu ñeneen ni sama ben sama yeneen morom ñu ne day daw seen biir dañuy waccu seen biir bi da way man musuma sama biir musul daw mais waccu na ngay man di do sa yaram bi moy di do tal dara do hala dara nelaw rek ngay bëgg nelaw rek ma de dama mosoon febar nit fekk ma fofu non nakku metti la amone mu fekk ma fofu mu ne ma dama jënd lii nga def dina arrêté waaye bu ma demee ba def ko sama jëkkër sa dafa doon coow mu ne ma lii bu ko defati yaa ngi nii def nga ko ba pare amoo si sa jàmm si ëllëg sa mënu ma génn sa sibiti biti ndax lim ma def jàpp na sama yaram bi woccu naa si guddi bi yëpp dama woccu kerew nelawu ma sax après si laa ko arrêté defatuma ko xanaa comme ñun am nañu groupement am nañu ay tour yu ñuy def jigéen yi comme am nañu ay groupement ay tour yu ñuy def ñu sensibiliser sensibiliser ko à partir de foofu parce que moo loolu mooy daje bi soit ngeen daje dimanche tey comme ñun nu ñu daje dimanche boo ñëwoon fi mercredi fii yëpp day fees ak ay jigéen waaw ñu sensibiliser xaw ma def sensibilisation su ci moromu jigéen yi xamal leen ni lii baaxul lii effet secondaire la lay andil te lii effet secondaire yi mooy cancer moom munoo ci munoo munoo laa bàyyi ci loolu parce que da nga koy def di ko dugal rek di ko dugal rek di ko dugal même bu fekkee da ngay saw di ko génnee waaye wala nga laabu di ko génnee du du tàmm set day des foofu te li yëpp kiwul mais produit yi ñu ko defaree la ñu xamul yan produit lañ ko defaree mais xamee bokk na si loolu moom ñi koy defar rek ñoo ñu mun a xam compo ñoo ñu mun a wax yi waaye composant yi ñun xam ni xamee bokk na si xaw ma xamee ak taba taba euh, tab pon bi ak xame bi mais leneen luñ ciy def kenn xamul lan la ma ne la pour te dire tuuti la ñuy takk il paraît cent franc tuuti takk cent franc takk deux cent léegi ñoom dañuy dem ci ñu koy it defar ñu ramasser ko foofu ñëw di ko jaay bi ñu yoon a takk deux cent waaye jigéen yi bëgg nañu lii de bëgg nañ ko majeure parti des femmes du département dañ koy utiliser loolu moom moom moom bu sa sonn dañ koy utiliser Awa Baba moom munu munoo wax nit ni la mel te ñuul ñuul na ñuul bu nga xamante ne munoo wax nit ki naa nii la mel waaw da nga koy xool ba sonn doo xam ban façon produit la ñu bañ koy utiliser te yaa ngi gis yaa ngi koy utiliser mu lay indi yeneen jàngoro yi nga xamante ne yow xamoo bopp bi ak genn bi moom boo demee hôpital léeg-léeg duñ la mun a faj bu dee man kese la ñu nga ñu bañ koy utiliser daal moo gën parce que li ngay utiliser nga xamante ne nga ne pour mu faj la ba pare nekkul di lay faj yeneen jàngoro la lay indi nga bañ koy utiliser moo gën. ñu bëri ñu koy def. xamuñu composition produit bi euh, li ñuy gën a yokk mooy xamal leen lan moo nekk ci produit bi mooy xamal leen effet secondaire yi muy def li ñuy yaakaar loolu moo tax ñuy xat en fait du xat la ñuy def mais ñu ngi ŋat seen seen seen ndox yaram dañuy def ba da ngay séché complètement ñu xam loolu xam ni du peut-être que loolu parce que man li ma wax sama benn sensibilisation ma ne leen mënoo nekk jigéen buy sëy nga am ñaar ba ñetti doom nga ne lii mooy tax nga nga delluwaat comme xale bu am 18 ans mënul ne kon war ngaa poser sa question que lan moo anormal ci li ngay utiliser loo xam ne moom moo war indi loolu parce que ñawuloo foofu lan moo anormal nga sëy benn doom ñaari doom nga bëgg ne nga bëgg ne xale bu mel ni 18 ans boo ko defee mu nga mel noonu kon am na loo xam ne produit bi nga utiliser am na ci loo xam ne normalu mu ngi lay gànc xamoo ko ma xamal leen aussi ni utiliser produit bi euh, mu lay ranger. yang ubi sa yang ubi ubbi sa sa sa yaram ay feebar mel ni sida cancer du col de l'utérus parce que ñun ñëpp xam nañu ne am na feebar yoo xam ne il faut contact boo xam ne am na lésion am na gaañu gaañu pour que virus bi mën a jaar ci loolu donc yow boo indee sa bopp gaañu gaañu déjà nga seq ak góor boo xam ne li yàlla xam doy na donc c'est obligé nga jël yenn feebar xamal leen ni surtout cancer du col de l'utérus booy seetlu léegi bëri na. man nee naa buñ ci jógul teel ak ans cancer du col de l'utérus dina def gaffe dina dina dina dina euh, dina explosé fii ci région Ziguinchor parce que ñu ñëpp xam nañu ni tous les hommes sont des porteurs sains du virus euh, cancer du col de l'utérus léegi nag bu qu'un jigéen ñëpp ñu ngi koy utiliser wala au moins un quart des femmes ñu koy utiliser mais fii ak 10 ans beneen affaire lay doon donc je crois que

gu xawuma woon ne dina am bii ampleur mais réussir na de parce que wër na Sénégal wër ngal këpp dem na ba dans le monde entier parce que ni ñi partout lañ may woo partout le journaliste di jóge di ñëw dagg ay billets uniquement pour ma wax ñu dégg tey li ma gën a kontaan loo mooy sama directeur de la santé dafa ne dafa am ay collègue ay supérieur am yu ko ne yow directeur ndekete yow lii moo xew sa dëkk mun leen yëguma ko xaw ma sax lan la ñu ko sa bàjjen moo ci wax bi mu waxee man ko dafa nekkoon loo xamante ne da nga voyagé te mu gaawoon moo tax ma def ko sa tàgguwuma la maa ngi jégalu mu ne ma nag dina jël toutes ces mesures au niveau de la santé pour ñu def enquête trouver ba xam lii fan la jógee ah nan la ah, ah lan lañ ci mën a taxawee ba lii jeex ci région Ziguinchor nañ ñu jàppale ñu jàppale ñu wàcc sur le terrain ñu koy jaay ñu teg leen amaan wala ñu jàpp leen yoon yoon uti leen daal ba mu ñu téye leen bu ñu toog rek ñu neen ñun relais yi nañu jouer nañu dugg sur le terrain ñu jàpp ñu koy jaay ñu teg leen amende. multiplier communication bi surtout fu ñu gën a jàppale média yi ñu gën sensibiliser parce que am na foo xam ne mën na fa egg mais rajo bi mën na faa egg télé bi mën na faa télé mën na faa egg kon bu ñu gën a jàppale média yi ñu gën a sensibilisation bi man je crois qu'on peut trouver une solution voilà Ben, bon xëy na beneen bi ma ciy euh, état fexe ñi koy jaay parce que fa ñu jéem a ñuy couper à la source ñu fexé ba xam ñi koy jaay daan bi ñuy teg jaaykat yàmbaa yi ñu teg même daan ci kaw ñooñu parce que lii en fait yàmbaa la drogue la il faut que ñu fexé xam ñi koy jaay daan bi ñu criminaliser ko comme ni ñu def drogue bi ñu def parce que lii en fait crime la parce que nee naa la fii 10 ans man j'ai peur hein j'ai peur pour la Casamance surtout région Ziguinchor parce que boobu laa gën a maîtriser donc état ni mu criminaliser drogue jaaykat yàmbaa yi man pour man bu ñu eggee ci loolu. je fii ak laata ñu si indi ay pexe garabu tabaaba mi ngi law di jur ay feebar yu si mel ni cancer du col de l'utérus wala yeneen jàngoro yu mën a indi ay jafe-jafe si buntu njureekaayu jigéen yi ñii di bàjjenu gox yi ñoo ngi ñaan autorités yi ngir ñu jàppale leen si wàllum sensibilisation ak jaayum tabaaba bi ngir ñu jëlee ko fi ci lu mu gën a gaawee.